Moussa Moussa Diouf ñoo ngi lay nuyu. ñu leen di fay waa wasaare. Uh-huh. Uh, tey jii ñu gis ne maanaam peut-être booy xool artistes yu bëri ñoo ngi ñëw fekk si la fii sa kër. ngir appel bi noo yëgee loolu. waaw ah, kontaan la rek xam nga te mbégte mënul weesu lii. nekk si benn affaire boo xam ne bi vraiment yëg-yëg la parce que man am na ñoo xam ñu ngi nekk si mbir du ñu le ba kenn fekk si leen mais tey damay am fierté ma xew xewle artistes yëpp ñëw li fierté la du man maa xew xewle xewu diine la xewu yàlla la tey Catholique ak ñëpp ngi fi wax dëgg yàlla dañ koy sant yàlla di gërëm artistes yëpp nag ñu teew ñëpp mënuñu leen dim mais dañuy gërëmandoo ñëpp xam naa vraiment dama kontaan trop. daanaka ça fait deux ans yi ngi lii di appel bi mënu amul woon à cause du coronavirus ñu ñëwaat tey jii année deux mille vingt deux bi ñu daal di koy amalaat. noo ko dundee. rek parce que lii dafa manqué woon dañoo manqué woon deux ans yi lii moo ñu manqué woon. lii tey bu ñu demee ba am lii tey sant yàlla la xam nga vraiment dañ ciy fier xam nga lii dafa neex barke yàlla dañ ko préparé ni ñu ko mosul préparé ni ñu ko préparé ren mosuñu ko préparé wallahi lazim tax dañoo dañoo manqué woon dañoo namoon lii du lekk gi du naan gi ambiance bi nañ soxla nii retrouvaille bi parce que lii amul tournage amul tournage bu mën a dajale artistes xam nga kon nag lii suñ ko amee mu lii boole ñu vraiment dañ koy sant yàlla di ko ñaan yàlla feebar bi na fi jógee carrément rek carrément carrément vraiment mbas boobu daal vraiment yàlla bu mu fi amati vraiment. monsieur le juge nag comme que yow nga am na ne moom mënuñu fi dégg te di ko waxtaanee muy problème kii di Adji Sarr Sonko ça un an ba léegi justice amu si Sénégal yi bëri di si xaar. moom wax dëgg yàlla moom xaw ma ci dara quoi franchement parce que procès bu rey ay nit xam nga vraiment. <laughs> foofu daal loolu moom du ma ci sax bëgg ci kii quoi vraiment. mais jàppoon ne ñooñu fu mu toll nii mooy ñooñu toll ak treize personnes yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñooñu yoon war na def bañ xam fu ñu féetee fu mu toll nii. non ah, xam loo xam ne bi man pour man loolu man wax dëgg yàlla du ma du ma du ma avocat parce que déggoo sax ñu koy jéem a jugé xam nga kon du dafa dafa ëpp suñu capacité bopp loolu laa. jërëjëf ñoo lay gërëm bu baax maa leen di gërëm